bu ñu nangu kenn te ñu lëmbe ci internet bi ay jeunes ñoo ci nekk ànduñoo ñun di ñu di lëmbe internet bi ñun ñu ànd ñu ñu àndal ñu toog bu ñuy dugg ci internet bi di wax yeneen il faut que ma sensibiliser pour que ñu xam ne internet bi lieu de rencontre la ñëpp a nga ca buñ ci ñee gënee fës te ëpp ñu ñu ci ñun la ci sunu taxawaay la donc ñu jox leen rôle boobu. tax ma sensibiliser leen ci loolu gën leen a arrêté aussi ci li nga wax léegi dafa am benn kilifa bu ma wax ne Amadou Diarra politique bi léegi gisoo ne dafa changé ma ne ko ci lan mu ne nit ñi léegi dañuy benn politique soxor la ñuy politiquer xeenante jam rey liggéey toj sàcc saaga politique bu bees boobu noonu xew Sénégal war ngeen def attention yéen leaders yi parce que mën nañu attan lu nekk ñu def leen ko. bu njëkk ba nit ñi du ñu ànd ci politique mais dañuy dañuy silvissé mais lu bees tey gars yi indi il faut que ngeen wax nit ñi ñu arrêté ko ñu moytu ko suñu jeunes yi bu ñu leen formé ci mbedd mi di leen jàngal saaga ñàkk kersa naka ngay ñëwee ci ab mairie nga taal mairie bi tojati sàcc la fa nekk yëpp yóbbu nga ne acteur politique nga am na koo gëm ci leader kenn du defar réew ci ak ci balaa ngay yor ngay ngay yàq xam nañ nga marché sax sanni benn kaar Ndiaga Ndiaye wala benn ñu ne kii d'accord mais dem organiser wu sàcc fekk ku yor marchandise am di liggéey ay at xamoo fu mu jëlee ay millions nga jël ko raas lépp yóbbu ba pare toog di di di kontaan naan doxul taal nañ ko courant bi tàkkul taal nañ ko bertee bu dawul loolu cette haine là man vraiment xaw ma fu ñu jógee xaw ma ay ñëw ñëw rax ñu xaw ma mais loolu ñaaw na ci dëkkandoo Sénégal pays de teranga mun nañu bañ a bokk jëkkër ak jabar ñu bañ a bokk politique mais ñu xam fi ñu jëm donc nag loolu message bi jeunes yi dañ ko war a porter responsable politique yi porter ko amatul toog làmmiñ kenn du ko lekk te ñorul wax ak wax la dugg ci terrain bi boo toogee yaafus nag ñoom ñu dugg ci terrain bi wax y a un adage euh, français qui dit que si vous ne dites pas qui vous êtes ton adversaire dira qui tu n'es pas maanaam ci wolof mooy boo jugul wax ki nga doon sa adversaire sa politique dina wàcc ci terrain bi wax ki nga doonul te doo ko mën a nekk foofu pour weddi ko donc il le terrain président Abdoulaye Wade moo doon wax ne s'il y a des militants dans l'océan apprenez à nager si y a des militant dans le ciel apprenez à voler il nous disait que même l'université pour man waruma fa wut ay militants parce que étudiants yi jàng la war a am mais comme Senghor moo ngi fay dem je dois chercher des militants à l'université donc suñu nekkee internet ay militants ñoo ngi fa suñu militants dañu war a envahir internet mais on ne laisse jamais un terrain politique libre à l'adversaire gaa yi ci internet di fayet muy terrain politique di fa def politique mais fekk leen fa nga def politique bu ñu ëppalee bu yàggee yaa ngi leen di bu dee ngëm-ngëm ak dëgg nga nekk te gëm naa ne ñun ñoo am dëgg on a un candidat un grand fonctionnaire kenn ëpp ko profil doon na directeur général doon na ministre doon na premier ministre ba tey mu nekk candidat Sénégal bi or ak pétrole génn Sénégal bi nga xamante ne ñiy taal dëkk yi dañ ko bëgg taal pour ñu taal guerre ñoom ñu ñëw tibb suñu alal yóbbu suñu or suñu diamant suñu pétrole ak suñu gaz ñu ñoo war a muus balaa ñu ñëw di jël suñu alal ni Dubaay mel ànd liggéey seen pétrole ñu jëriñoo ko ba tey ku jóg dem Dubaay noonu fii ak juróomi at noonu la ñu war a am président bu toog toogaay bu dëgër bu mel ni Amadou Ba ba a caaxaane présidentiel ñu jox ko Amadou Ba bi nga xamante ne Macky teg na ko ci yoon formé ko affaires étrangères formé ko économie finance formé ko directeur des impôts amel jox ko plan plan Sénégal émergent xam na fu Sénégal war a tegu am sécurité sur le plan militaire sur le plan de l' information réewum Sénégal kiitude boobu la soxla di ko foowee nag defe ne affaire u mbappat la wala affaire u nawetaan ah, façon xaw ma ay jogamaay xaw ma yan candidat di nga xam dañuy foowee donc yooyu la bëgg ñu Sénégalais ñu def attention buñ fi nekk di wax dañuy rëccu d' accord nañ nañu sérieux ci président de la république c'est une institution poste bu am solo la parce que dem beeg dikk bi suñu tëdd ak suñu nelaw suñu sécurité moo ko yor nu ñu ko foowee di ko jox ñi nga xamante ne bëgg riiru politique rek moo ci dem ba dal ci après ñu naan rëccu nañ loolu laa bëgg vraiment alerter sénégalais yi. maison de la jeunesse et de la citoyenne état moo koy tabax site bi moo am problème entrepreneur bi dafa waroon tabax mais comme zone boobu site bi zone ni aedificandi la woon dafa yaakaaroon rek suuf la bi nga xamante ne da ngay ñëw rek sëkk am lu mu laaj. zone ndox la woon fan comme arène yi ni ko chinois yi def zone ndox la woon ñu ñëw dindi ndox mi muucu ko def ci ay perméable tabax mu doog a nekk léegi nag ba mu ñëwee gis ne foofu lañ ko joxoñ mu laaj leneen laaj beneen budget laaj yeneen étude looloo ko yéexal mais bokkul ak ministre de la jeunesse boobu muy def dëkkam comme bii yéex na te yee mënul xaar ñu commencé yee donc du boobu rek am na juróom yi mu commencé ministre de la jeunesse même nee na Fatoumata moom mi nekk ministre de la jeunesse am na yu mu commencé notamment bu Guédiawaye bi mais bu Pikine bi kenn toxalu ko fii ci Pikine Nord la ci côté arène bi 5000 xam naa ne étude assainissement yi presque pare na fay nañ ci liñ ci waroon fay promoteur bi moo ngi ci donc maa ci mën a wax lu am solo mais centre commercial bi à peu près 3 milliards lañu la ñu jàpp ne ci esquisse yi ñu ma indil étude financière yi ñu ma indil kayit bi président Macky Sall jox nañu ko pour assiette bi équipement bi war a am fi zawiya bi war a nekk fi maison de luti yi maison des handicapés fu mu war a nekk euh, manège bi pour xale yu ndawaan yi pour kenn du demati Magic Land loolu Pikine Nord loolu laa waxaale woon ak président ba may ñëw di ko jàppale kayit bi koy dëggal ñëw na depuis le 9 janvier tey le 18 donc am na juróom-ñeenti fan ba mu ñëweek léegi kon président wàccoon na ak waa Pikine wàccoon na ak li mu waxoon ak waa meeru Pikine ñun waa Pikine ñoo war a wàccoog président xoolal ko joxe bi muy la candidat Amadou Ba pour mu ñëw fi ngir ñu yeggale loolu yëpp di xéewal ak teraanga